tamina aussi wondiɓe moon mi salmina wandiraɓe ɗiɗɗeji gondiɗoɗi monsieur le ministre fof en kaali kono euh, mbiyatmi tan mo allah fof bañi ɓuri mo lel fof bañi par ce que agriculture o fof pawɗen koye junngo allah on mbaɗat sababude mi nani ɗo waɗi caɗele ɗe ɗe kalete caɗele mbawaɗo was par ce que woti en jejiti sénégal hanki woni ɗo tan sénégal o so ta hin gonɗo ɓeydo tawaɓe han kilo hande kono kilo guerte 2009 75 franc jaratmo hande jara capan jeego capan jeegoy e fuɗɗi to nder ladde to nden wadde monsieur le ministre min mbiyat an garannoɗo ko ɓamtare neydi ko ɓamtare ndemaka wadde min ñaago allah allah ko ɗummoɗa aussi monsieur le ministre min jettat président mo ganduɗa kam suuɓi par ce que président de la rue comme subata ɓe wonaande ɗo fof subata aussi par ce que waɗi ɓe ngannduɗaa ɓe ngonino ɗo jaaɓorɓe leydi ndi kono alaa ko ɓe mbanno wonaa ittude ɓiɓɓe moynaa ɓe caggal leydi ɗum yimɓe sénégal oɓe mbiita ko yaagol caggal leydi nde ɓe galede wona wonaa ɗo fuɗɗi par ce que addinum ko wonnoɓee ɗo ɓe mballaano ɓiɓɓe leydi ndi enen on ngari on ƴettude changeude ɗum woni tagi reefataa e woni te dendi weɓani sansude e dow ñallal gootal walla mbaɗa ɗume ñallal gootal par ce que ko caɗele tawɗon ɗen caɗele ittude ɗe haala ko mbaɗa ɗo hunde weɓata kono ko allah wallata ayi allah jilli aussi min nani ɓe mbi ko waɗi ɓe ngannda a haali a juumi e pfm non on in fof fof mo leer par ce que ministére juumi lim jottoon dafa am ñu fa nekk ñoo ko jox information ñi ko jox information 200 hectares lañ ko jox loolu la mën a génn li si des nag après la ñëwaat li ñëwaat après nag loolu nag après boobu il faut mu démarrer rajo wala très fekkee ñale wax nañ parce que il faut aussi communication ñuy sàcca di ko jaay kenn nit ñi Sénégalais yi ki nekk ci diggu àll bi tey mënoo ko nag bon il faut ñu bay sàcca kenn nit ñi loolu amatul fii ministre Diouf moo si sax qui parce que dama am ay enquête yu leer nañ bi mu amee dafa am sama benn collègue bu de mu ne ma li njëkkoon am mooy 200 hectares dañu jébbal ko ministre ministre génn communication boobu bon bu ñu ñëwee ba fii il faut ñu leeral li si des nag monsieur le ministre ñii danañ tàcc taas ñii danañ nekkat yu waaye ñaari war gi fël si am yu parce que nag ku dugg ci oto boo xam ne dégg nga ku dugg bu ñu yemee rek kuy fekk da ngaa faal yàlla nañu ci yàlla mu monsieur le ministre may sant aussi si ñi ngay àndal liggéey sa cabinet di ci jiital monsieur le directeur général Sani ñu ngi koy félicité ci da nga xam ne heure boo ko soxlee jot woo ko nga jot ko nga jox ko information wala nga waxal moom aajo sa aajo ñu ngi ko ci félicité ñu ciy félicité aussi suñu xarit suñu mbokk mooy Pape Malick waa Kaffrine nag am na Saloum Saloum dafa gëm mbokkam ak sa euh, directeur général yëpp sa cabinet sa yëg ak DPV aussi ñu ngi ci liggéey bu mucc ayib pour réew mi. Euh, monsieur le ministre maanaam soog def ma yombantoon mu ne dafa am ko mérite parce que dafa bëggoon taxaw wax bu fekkee dafa génn mu am waa département bu Nioro ci kaddu Nioro lay waxee. sant nañ la gërëm nañ la ci liggéey bi nga xam ne mooy gros producteur yi ak liggéey bi nga engrais bi ak waxtu bi mu ñëwee ak fi ñu ko soxlee nga ko ko ayante ñu ngi lay ci félicité am nañu résultat monsieur le ministre de finance ñu ngi lay félicité noonu waa mondial kono monsieur le ministre komin jiɗi mballaami e ministre de l' agriculture mballo min e kaaliso o mbo naata o waawa a haa a préfet ɓe cooda gerte ɗe pour ɓe keɓa stock so wonaa ɗum ma gerte ɗe njaha sino njehi aussi चिरंजीवी को शिव उनका पाए टेस्ट ऑप्शन के बाद टेस्ट ऑपरेशन का हो या कोई कुछ का इनको बड़े प्रोग्राम पास नहीं रहा है उद्यम मंदिर के ज्ञान में को को जाला हो वाले थे बट इनको बड़े प्रोग्राम नितो काल स्कूल बावन जो ओपरा का जी बावा या को का गेट में टेस्ट Monsieur le ministre, nous venons après mieux tout le monde. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous nous ici pour Sénégal, nous ici pour président, nous ici pour Yémen. waaye nag dafa am loo xam ne il faut yéen ministère Macky Sall yi ministère de la République ñu sañse ko parce que ku fi taxaw saaga suba ñu woo ko di ko te ñun ñu defar ndax da ngeen xam ne ñun ñoo leen